ngir dal di koy eh, eh, yóbbu gis ngeen nag yenn député yi di ko ñaan njekk rek ngir mu daal di delloo li nga xamante ne urne bi ñu wax ne rek nag aman di yaakaar nañ ne dina nangu waaye fi mu nekk jamono ji dafa gum ngir eh, dal di joxe urne bi li nu mel nag dara waralu ko ñu bamtu ko rek ne vote par procuration boo xamante ne waroon na am ñoom la ñu di contesté lu tax ñu contesté ko nag ci kanam dina gën leer ah Guy Mari Sanya daal di Delo eh, delloo urne bi daal di nay delloo urne bi fi nga xamante ne nag ñi eh, yenn député yi donc eh, ki ko jox nag mooy Birame Souleye Diop bu groupe parlementaire bu yeewi askan wi kon nag mu ngi nii moo jël urne bi finalement moom la ko Guy Marius Sagna daal di jox ñu daal di koy delloo li nga xamante ne urne bi ngir gannaaw ba vote par procuration bi nga xamante Qui euh, di Farba Ngom Bogon Nakodef, au nom de l'honorable député Aminato Touré finalement loolu